asalaamaaleykum nuyu naa leen mbokk man la Cheikh Thiam ambassadeur de la jeunesse non boutique de Touba tey suma video bi dama ko jagleel télévision yu nekk Sénégal télé yépp nag laa wax mu am loo xam ne ñu ngi koy sumb sénégalais yépp ne patt di leen seetaan te mu nekk loo xam ne mu ngi raam te bu àggee ca ñag ba mooy taal réew mi plus particulièrement suma télé bi nga xam ne man moom laa bëgg di ko seetaan muy TFM plus particulièrement émission bi nga xam ni sama xarit a koy def muy Pape Cheikh Diallo ñu koy wax quartier général euh, ñëpp xam nañ ni am na lu ñu seetlu ci jamono jii ci weeru koor wi mais waa télé bi man dama leen di comprendre ah du leen blâmer duma leen condamner parce que si seen rôle la ñu nekk tele commercial la ñu yore te ñoom bari nañu xam-xam xam nañu ni sénégalais yi ci mbalit ak poubelle ak ay conneries ak ay bêtises rek ci la ñuy débattre. moo tax ci ñooñu rek yooyu ñi ci gën a ay ci Sénégal ci yooyu ma lim ñooñu la ñuy invité pour seen grille la pour seen audience seen télé am audience comprendre na leen ils ne sont pour rien donc dara mais sénégalais yi war nañoo jóg ci lii maa ngi ñaan Babacar Diagne bu fekkee moom mooy directeur de CNRA wala ga yi nga xam ne ñoo yore affaire saytu télévision yi nañ ci taxaw lii moom moo nar a taal réew mi soit dix ans waaraatekat yi nga xam ni ñoom la ñuy invité chaque jour. kenn ku ne ñëw jóge ci këru diine benn diine ci biir Sénégal kenn ku boo ñëwee ñu këppale micro bi àdduna bi yëpp di la déglu kenn du ci wax lu amal njariñ réew mi ci wax lu amal njariñ askan bi kenn ku ne boo ñëwee sa nitu diine fa nga jóge nga fay nekk di tagg dañuy invité kenn kii bu ñëwee tey danaan sëñ Tuubaa mooy yàlla mooy yonante bi moo gën ñi fi nekk bu ëllëgee ñu woo benn benn waa kër Baye Niass mu ñëw ni Baye Niass moo jur yàlla moo jur yonent bi mooy bàyyi Seydina Mamad bu ëllëgee ñu woo ku jógee Tiwaawoon mu ñëw ni Alaaji Malick moom eh, bi ñëpp di ut rey dafa wàcce woon boppam maanaam ay xeetu léeboonte yoo xam ne sinti nii mu ngir raam te loolu ñuy waxal nit ñu baax ñooñu noonu ñu leen koy jiiñal ñooñu ku ci nekk dëkk ba nga juddoo yaroo fa tëdd fa boo demee askan bi bu ñu añee duñu reer benn ci man mi dëkk Touba li ñuy waxal Serigne Touba ci plateau yi nga xam ni sin dafa mel ni malaaka yi sax Touba lañ dëkk mais boo ñëwee ci jumaa ji kër yi ko wër bu ñu añee du ñu reer Touba quatre-vingt-dix-huit pour cent wu transport bi ay sareetu mbaam la ndox mi fa am mooy ndox mi gën a bon ci àdduna bi jigéen ñi fay avorté ñëpp ndox mi moo tax seeni seeni biir bi yàqu pajuk Touba mooy paj mi gën a bon ci Sénégal lekk gu baax amu fa tàng na bari na ay yow pour désinfecter dëkk bi wala ñu pompe ko ba yooyu dee sax amuñu capacité bi mais loolu c'est contradictoire dafa wuute ak li ñuy waxal sëriñ bi ci tele bi sëriñ bi li mu war a def def na ko yàlla ber na ko defal ko lu mu defalul kenn d'accord nañu mais dem na y a plus de cent cinquante ans wala léegi mu ma téeméeraat ba mu demee léegi mais ñun ñu topp ci loolu di rey suñu bopp ni ŋar-ŋar yi waxatuñ ci loolu nag ngeen ñëw ci plateau télévision boo xam ne am na audience nit ñaa ngi koy déglu ngeen ma nekk fa di concurrence sénégalais yu naa fekk yeeg seen bopp yi metti ñu nekk foofu mel ni benn téléthon kenn ku ne di woote naan maye naan nangam ak nangam te lii nar a taal réew mi te ñooñu noonu di waaraate ci tele yooyu kenn ku ci ne dëkk ba nga dëkk ci dëkku diine bi ngay défendre am na tele mais ay gàndam masara gaay yi di ñëw di toog ci télé yi di wër di fen di dajale mais Touba TV ngi fi ay Lamp Fall FM fa la ñuy dem di di wax mais télé yooyu amuñu giri kenn seetaanu leen lépp lu ñu wax ci TFM rek ba mu toj réew mi wax nañ ko ci seen télé yi nekk ci seen biir kër dëkk yi tijaan yi am nañ télé wàñña seen am nañ tele Baay yi am nañ télé mais kenn dégluwu leen parce que télé yooyu amuñu grille kenn seetaanu leen amuñu audience bu baax mais TFM léegi nekk benn plateforme boo xam ne askan bi bàyyi nañ ko xel yàlla jàpp na ci nit ñi bëgg ko ñu bëgg a ci occasion boobu noonu nit ñi di seetaan ñu fay nekk di wax loo day taal réew mi mais sénégalais delloo si leen seen xel arrêtez de discuter dans la poubelle bàyyi leen di wax ay futilité lii na ngeen ci bàyyi xel bàyyi leen ci xel li lay rusul yi sinon suñu réew mi ñu ngi koy fowe ñun ñi nga xam ne am nañu malchance dem ci dëkk yi nga xam ne am na ay guerre civile wala ay affaire rébellion wala ay affaire terrorisme Boko Haram yi ñu ngi alerte ñu ngi alerté wax nañoo wax bay bëgg a dee kenn nanguwu ñoo déglu mais réew mi bu ñu ko fowe réew mi bu ñu ko fawee nañu xirtal nit ñi nu ñu def ba réew mi avancé ku feebar bëgg a faju faju ku xiif bëgg lekk war a lekk xale bu judd ñu mën laa jàngal ba ñu war a mën a am loo xam ne ci seen adduna day jariñ askan bi ëllëg waaye ay débattre ci ay sëriñ yoo xam ne ba ñu faatoo ëpp na téeméeri at ak juróom fukk